efficacité wu boobu les vaccins coordonnateur bu programme élargi de vaccination daal di ciy àddu di xam ne ni vaccin bi efficace wul à 100 pour cent 60 la jàpp 70 pour cent leneen loo xamante ni itam docteur Ousseynou Badiane daal di na koy rax dolli moo di vaccin bi euh, du la tere nga am euh, jàngoroy coronavirus waaye day tax doo yegg ci cas grave loolee tax muy sàkku ci askan wi ñu boole ci di respecter mesures barrières yi ñu ond ceeg moom maanaam téeméer yoo ñàkk juróom benn fukki ak jàpp juróom ñaar fukk ñooñu moom dinañ leen dina leen protéger ba duñ def corona maintenant fanweer yi def dina ci am ñoo xam ne mën nañoo def corona mais souvent suñ ko defee tamit ay ay yu simple lay doon ci ñoom nag téeméer yoo jël bu ñu vacciné juróom ñeen fukk jàpp juróom ñeen fukk ak juróom-ñeent yi ñoom yàlla dina leen musal au moins duñu def forme grave donc vaccin yi seen efficacité ci forme grave yi la ëpp te ci forme simple yi donc je pense que loolu lu xam la ñu wax depuis même ci commencement je pense que nit ñi aussi loolu yeewoon nañ ci ñu farlu ci ñàkk yi baax na mais aussi farlu ci mesure barrières yi pour mën a sàmm euh, seen am gu yaram sàmm wér gu ngoog Abdoulaye Mbow lii doonoon na lu leerul ci ci xelu askan wi. waaw doonoon doon na doon na lu leerul si xelu askan wi euh, jëm si li nga xam ne vaccination bi ak protection à 100 pour cent jëm si nga xam ne moo di mbas bi euh, waaye kër docteur ñoom yàgg nañu wax ni vaccin bi du la protéger à 100 cent. Mm-hmm. jël vaccin du tere nga am Covid waaye dina tere nga dugg si li nga xam moo di bi yi nga xam ne dañuy gis nit ki ñu branché ko raakool. Mm-hmm. di ko jox euh, li nga xam ne moo di oxygène pour mu mën a nokki waaye itam tam du la tere nga am cas Covid. tout court wala nga am cas sévère wala mun nga am tam cas sévère mais cas grave xëy na vaccin bi loolu la lay empêcher waaye li mën a am ba mën a am vaccin bi jamono ji mooy alternative mooy unique alternative bu amagum. Mhm. defe naa ne li baax kañ mooy nit ki xam ne effectivement ay vaccin mi ngi fi def nañu ay jéego ba andi ay dose mhm. euh, vaccin moo xam Sinopharm la moo xam AstraZeneca la moo xam Johnson la. Mhm. donc bu mu si munti doon la mën a empêcher empêché yi yàlla bu la dimbalee doo tabbi si li nga xam moo di cas grave parce que Covid bi mi ngi def li nga xam ne euh, maanaam ay ay musiba baabu kumba gis nga luy rot si doomu aadama si bakkan doomu aadama mi ngi bëgg jéggi dayoo donc ñu ñaan rek euh, ku si nekk rek lépp li nga xam ne information la ñoom ñu koy joxe ngir muy mën a tabb si askan wi askan wi di am la bon information. Mm, euh, Mansour coow lii mu tàmbalee jur ndax mënul am gàllankoor jëmale ko ci campagne vaccination daf koy am euh, ba dafa mel li may li may li may gisee mooy euh, yàlla moo leen di wax ne toujours man maa fi nekk euh, parce que vaccin yi bari na coow benn coow boo xam ni ak ni ñu ci rassuré woon nit ñi dalloo ci seen xel ni ñu leen ci doon poussé ak ñu doon am ay sikki sàkka mais bu fekkee Sénégalais bi déjà mu ngi dute wala nit ki mu ngi dute ci lii mu bëgg a jël comme vaccin mm-hmm. wóor na wala wóorul ci ni ñu koy interprété ci wàllu nitee ñu dem ba nekkate boo ko jëlee téeméer yu ko jël yu nekk lu ñëpp lay mën a fank à 100 pour loolu dafay daal di tey xel xam nga Abdoulaye. Hmm. lu am solo la ci ñuy communiquer. ci ni xëy na du la faj à 100 pour cent. mais mais Mansour loolu ñoom yàgg nañ ko wax. waa mais nit mais nit ñi message boobu eggul ci noppi nit ñi parce que man mii di taskatu xibaar man di taskatu xibaar. Mhm. tey laa soog am précision boobu di ko Abdoulaye Mbow waxee. parce que xam naa ne moom journaliste la xëy na bàyyi na ci xel mais gëm naa ko bi mu ko waxee. mais tey laa soog am précision boobu léegi ñaata millions sénégalais ñoo war a vacciné wu am maximum d' info yàgg yi ci li ñuy joxe comme xibaar lan moo ci nekk information précise boo xam nit ki daf ciy bàyyi xel xam ni lii la sama maam bi sama ndijaay bi xam ni moom mi ngi vacciné wu ji waaye nekkul ni vaccin bi dañu koy assuré ni day tax doo am Covid. à 100 pour cent. xibaaru dëgg boobu mu ngi soog a feeñ tey bi ñu gisee ay ministre yu vacciné ba noppi amaat coronavirus la ñu soog a def précision de taille ci boobu la xibaar. man mun naa xam naa bu baax précision ci information. mu ngi soog a leer même man samay nopp sàkkaa yeneen Sénégalais yi des dama ni. nañu wax waneen waxin. wu gën a leer te am précision ci Sénégalais yi. même ñiy vacciné wu ji ñu xamal leen yéen a ngi vacciné wu ji. mais mënu leen a tey ngeen am Covid 19. nañu fekk xibaar boobu parce que léegi loolu ah. te li ni mel nag Mansour teewul nit yi ñu ngi dem ba tey di euh, ñàkku ji ndax euh, gën kaa néew lu tolloog fanweer ak juróom ñaari junni doomu aadama ñoom la ñu jot a vacciné euh, ci bésu démb bi li ni mel yóbbu lii mu ñi jot a vacciné wu ci réewum Sénégal ci juróom ñaari téeméer ak fukk ak ñeenti junni yu toftal juróom ñetti téeméer ak fukk ak ñett de vaccination sekkoon ab waxtaan ak Nonko Bakayoko di daal di xam ne ni autorité yi sax ñu ngi def seen kem kàttan bu ko defee ñu am yeneen i dose yu vaccin bu ko defee ñu gën a yombalal askan wi euh, yëf yi ñu ondu ceek euh, Nonko Bakayoko ci Sénégal ginnaaw xel ñaar ak tiitaange bi ñenn ñi amoon ci ñaxu yi ak effet secondaire yi mu mën a indi